dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéen kaay ñu xëyando yéen a kaay gi di réew mi ko di jee xëy di ñu naan ñu kuy dem ba mu yàgg ba nga gëlëm xamutoo fi nga jëm lala war mooy nga dellu fu nga jóge woon ci loole ci la njiitu réew mi di président Macky Sall nekk yéen a kaay gi di réew mi ko di jee ci xëlim ak Assane Samb nee na Macky Sall ginnaaw bi mu fi tàqalikoo ak ñi nga xam ne ñoo nekkoon ay jege ñaale ma ñoom Amadou Ba ak Aly Ngouille Ndiaye ak Aminata Touré gis nañu ne Macky jamono ji ma ngi ci ab retrouvailles ci biir APR ginnaaw Aly Ngouille Ndiaye mi nga xam ne dalaloon na fi ak Aminata njiitu réew mi nga xam ne digganteem ak ji gis nañ ne ko fan yi nga xam ne moom la ñu génn tamit ca diwaanu Cambérène ak cene ba gis nañu Macky Sall Ba nekk ci wetam yéene kaay gi ne na Macky Sall dafa bëgg boolewaat kàngam yi nga xam ne moom la tàqali ko waana yéene kaay gi ne na yi jub na ran yi jub loolee ci la Macky Sall nekk ndax nee na 2022 bu weesu enjeu politique yi dafay doy waar ndax 2024 la ñu jëm te na xamuñu lan Abdoulaye Wade maanaam tàqalikoo ak i kàngam ndax say kàngam say jigéen ñaale bu ngeen tàqalikoo loole mën na laa néewal doole te ñooñu dañuy xam lu bare bare yéen a kaay gi la sax xëy duñu xibaar naan ñu en tout cas li am ba de Sall njiitu réew mi di président Macky Sall béy boo mu jël ay matukaayam ndax opposition bi ñoo ngi dajaloo ci seen biir ngir nag taxawal ab coalition boo xam ne coalition bu mag lay doon yéen a gi nee na ci ci la kaay yi nekk Ousmane Sonko a Quotidien xëy wax ci coronavirus bi nga xam ne mooy jàbbaa jonge ci réew mi waaye nag am na ñenn ci sénégalais yoo xam ne maanaam daal jinjeer la ñuy jël ak limon ak li nga xam ne nag moom mooy daal xorompole boo leen boole nag ñenn ñi gis nañu ci seen bopp daal am na kenn koo xam ne nee na li nga xam ne moo ko daloona jàpp na ne daal coronavirus la waaye nag jinjeer la jël ak limon ak xorompole daal di koy boole yéen kaay gi di Sud Quotidien nee na jamono ji jinjeer ji dafa cher ba maara détaillé ndax nag kilo jinjeer ma ngi doon jar 1200 ji ma ngi ci 2000 francs gi nee na xorompole kilo bi nag ma ngi doon jar cinq mille cinq cent jamono ji yokk na ba sept mille cinq cent yéen a kaay gi di enquête xëy dañu xibaar naan ñu coronavirus bi jamono ji nag nemmeeku na ne ma ngi wàññeeku ci Sénégal yéen a kaay gi di réew mi quotidien les échos enquête Walfadjri l'observateur ak le quotidien ñu xëy fekk fa Soham Wardini maire bu Ndakaaru dàgg sante ki nga xam ne mooy Aliou Ndoye bu Dakar Plateau yéen a kaay gi nee na en tout cas ñaari maire yi daal li nga xam ne nag moo leen jotale ba jamono ji ñuy xiiru nag mel ni xaj ak muus maanaam mooy marché bu Sandaga kenn ku nekk dafa bëgg nag yilif marché bu Sandaga mbir ma nag jamono ji mënu ñoo wax ne fa mbaxana doonee benn nag lay téere ji son war di ni mer na ba maara di taale nee na ko Alioune Ndoye nag nga xam ne daala tubay ñaari loxo moo koy takk waaye sér tamit ñaari loxo moo koy takk Alioune Ndoye nee na ko soo am war di ni di xam na nag ba si góor a koy bay yéen a kaay gi la sa Alioune Ndoye moom nag daat nay wax ne amul benn arrêté wala benn décret boo xamante ni jël na marché Sandaga daal di koy yóbbu ci mairie bu Ndakaaru marché Sandaga sunu moomeel la te ñun nag am nañu projet boo xam ne dinañu ko tabaxaat daal ba mu mucc ayib comme na mu meloona mu am nag ab centre commercial boo xam ne bu moderne lay doona soo war dine nee na lii nga xamante ni moom la ñu def daal daal di daaneel marché Sandaga loole nag crime dëggantaan la crime la boo xam ne dañu koo jëmale ci patrimoine culturel la waaye nag mbir mi daal danañu si dem jusqu'au bout yéen kaay gi du l'Observateur ak Rewmi Quotidien ak L'As ak Sud Quotidien xëy dañu xibaar naan ñu nag ñi nga xam ne ñoo doon joué série bii di Cirque Noir xam ne nag maanaam mën nañoo jàpp sax ne film porno la yéen kaay gi nee na acteurs ya ak actrice ya ak producteur ya ñoom ñëpp daal bi ñu ko xëyma toll nañ ci fukk ak juróom-ñaar teg nañu leen loxo division spéciale de cybercriminalité moo fa jaar yéen a kaay gii de la témoin xëy dañu xibaar naan ñu bëri na ay milliards ay milliards yi milliards yi milliards la ñu jël nag dugal ko ci wàllum inondation yi te ba léegi ni saafara mus waaye nag milliards yooyu fan la jaar journalu Mamadou Oumar Ndiaye bi daal xëy wax ne ñaar fukki fan ñaar ci weeru octobre atum ci wàllum inondation yi te ba léegi nii inondation yi ma ci réew mi milliards yooyu fan la duggoo yéene kaay gi ne ministre Omar Gueye moom nag waxoon na fi ne lu jëm ci wàllum liggéey yi nga xam ne ñoo ngi koy liggéey Kër Massara ci inondation yi mën nañoo wax ne liggéey ya pare na a quatre-vingt-dix pour cent te nag benn taw kese kese kese bu wicci wiccalee rek Kër ma Massara askan wa tëmb ca ndox ma ña nga xam ne nag ñoo fay yeewoo ñoom nag jamono ji li nga xam ne daal moom la ñuy wax mangeance d'état maanaam kàcc ak fen yi nga xam ne moom la état bu Sénégal nekkee loole la askan wi yeewoo Kër Massara di naqarlu bu baax a baax baax du suñuy kàddu dañuy nettali yéen kaay gi di réew mi quotidien ak libération ak vox populi xëy ci Penda Kebe mi nga xamante ni maanaam dañ koo fekkoon nag mu ñàkk bakkanam ci gox bii di Ziguinchor yéen kaay gi nee na Aliou Diouf mi nga xamante ni moom lañ jàpp ne moo def giraawaali googe moom nag wax na enquêteur yi doy waar doy waar nee nag mbirum jesneer moo leen boole xale jigéen bi da koo lu toll ci soixante-dix mille francs ngir nag mu daal la nag daal di jóg yéen kaay gi nee Diouf moome nag da koo xoj ba mu sedd kuyu yéen a kaay gi di estat xëy dañu xibaar naan ñu tirage au sort CAN 2021 ca Cameroun tey jii la Sénégal nag mën naa dajee ak Égypte mën naa dajee ak Côte d'Ivoire mën naa dajee ak Gabon mën naa dajee ak Guinée équatoriale